Sénégal salaamaaleykum monde entier di leen wax ni tey ñoo ngi fii nii euh, di njaasaan fekk fi artiste bu mag a mag di yëngu ci wàllum aar yor métier tamit di ko def di ci liggéey waaw bañ kenn yàpp ko waaw mais li ma jaaxal mooy waa Sénégal kenn xamu ko ci lii nga xam ne ni maanaam moo di métier bi nga xam moom la yor léegi moom la seet si ñëw waxtaan ak moom fii ci place am ko waxe legui ni waw ñu ñew set ci ki nga xamni ni manam modi euh, modu bol ñu gën ko xam ci bol gën ko xam ci teug ak way ak fecc waw tay ñu ñew fekk fi Ndiassane muy jaayap ñu bëggoon xam euh, ki nga xamni moy euh, modu bol mo moy kan ak lan mo waral jaayap bi ak lan mo waral tay fi ci Senegal, assalamu alaykum aduna assalamu alaykum samay xarit alaykum samay am di assalamu alaykum samay fans tay sama rakk yi ñëw jóge awon Mansur, seigne Mansour xalé am jom bëgg seen bop bo gisé li lepp pour aduna nit ñi yew la kenn ku ne xam li nga doon xam sa bop bëgg sa bop xam ci li ngay nek waye nak Modou Bool réew mépp ma xam waye nak li la namp takamti ku ni euh ah, ci la juddu ci la yar ci la am ay soxna ci la am euh sam papa genn aduna bayyi fi doon jaay njaasaan motax ma bàyyi programme yi ma ko ñew ci mom ndax màggalal ko bis bi rek moo tax moo waral lii mais sama métier nag mooy jaay yàpp moom laa xam moom laa donn moom laa man tamit dama ko a man aar nag yàlla ma booleeg moom nit ñi bëgg ma ci may tëgg bool ñëpp naan Modou Bool senegal xam na nu maay kan waaye nag lii nag mooy sama métier ci lii nag ci laa bëgg a sax ba ñëpp xam ni maa ngi ci ci laay sax moomu laneen lu ma def lii laay def waaw ndax lii rek ama ñor. waaw Assane. ñu bëgg a xam ñu bëgg a xam tamit maanaam euh, li nga xam ni moo di aar lan moo la ci dugal ak euh, kañ nga commencé def aar ñu bëgg a xam loolu noonu comme que lii mooy sa métier ci nga juddu ah xam nañ ko ba pare leneen li topp mooy liñ bëgg a xam mooy kañ nga dugg ci aar waaw. kañ laa dugg ci aar Daaru Xudus laa ne léeg-léeg ma dem xew mbay euh, mbéng sama xarit sama doomu ndey maa ngi ko nuyu baax mbay mbéng ko baax Daaru Xudus su ma dee jaayaab moo ma ni ma dem programme bi boobu man na ma tëgg man na way man dama fecc ma dem ba yalla def aduna bepp bëgg ma di wër après nak man ni sam papa ñaanal ma ma dem def programme mu daal di may ñaanal ñaan nga ma ñaanal nak yalla ful ko yo asan yow xam nga ci dara ndax ño bok men maam ma lamine min ngay sunu maam way daal lemer jooju anta maali gaana ma jigen birum far samba san sa pen mbor jeli boma rek ma ndax dano bok deret sa papa ak sama yaay ño bok ben baye kon sot ci la ak def ci lii nag foo ma dugalan ci aar waaye lii laa xam lii laa doon lii laa man ci lii laa gën a xam boo li may tëgg lii moo ma ko gënal tamit boo li ma ne ma xamal la tey lii ma ko gënal ci laa am lu ne ci leen ma ngénte samay ngénte samay rak sama rak yi ma am yëpp ci xaalis yàpp lañ leen ngénte sunu kër lu fa nekk lu ne xaalis yàpp ko fa indi kon daal maanaam su ma déggee sa wax bu baax a baax aar dafa doon loo xam ne daf la dab waaw aar la loo xam ni daf ma dab ma doon fa ba yàlla def ma artiste àdduna bëgg ma ñëpp dinaan Modou Bol Modou Bol ba tax léegi ma jël yàpp bi teg mais sa gàmmu Ndiassane bu ñëwee lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw màggal sam papa guddig Seydina Mouhamed ci barke maam bu Kunta borom waaw maanaam kon daal sa gàmmu daal sa gàmmu ci ngay ñëw fii nii jaay yàpp doo jaay màggal doo jaay gàmmu doo jaay euh, doo jaay fenn rek ngay jaay yàpp Assane du ma dem fen Touba bu ma demee sànq ba set lekk lu neex tëdd euh, bu Ndiassane jotee nag ndax fii ñun fi lan màggee jaay na fi kilo yàpp téeméer jaay nañ fi kilo yàpp sept cent jaay nañ fi kilo yàpp huit cent jaay naa fi kilo yàpp deux mille jaay naa fi cinq cent ba tey may taxaw di jaay kilo yàpp trois mille ci Ndiassane kon sant yàlla la yalla na yalla doli jam seen télé bi tamit yalla ful ko mu yok aduna am ko ndax ay xalé ngeen yu am jom bëgg seen bop mhm. tay taxawal wolé manen ngeen nek nekk ci yenen mhm. ci dëkk bu baax ngeen dëkk mam alaaji malik mhm. dëkk Serigne babakar ci bakkar ak Aram Lo Kumba Caam bañ pend ak bëgguma pend xar yàlla bokk coono. ñu nuyu ñep di la wax ni la contane nañ bu baax baax ci yow pap Diouf ñu gën ko xam ci pap Diouf ñu gën ko xam ci Modou bol ah di bég ci mom bu baax baax li nak moy métier li moy mooy cosaanam lii mooy waaw bool yi dab. ci li mu wax waaw di kontaan ci moom bu baax a baax a baax a baax di la wax ni la bëgg nañ ci yow waaw fi nga jàpp ni foofu la benen question bi lay mujjé poser moy ba xam euh, art bi de après manam lan moy sa ambition ci art bi dal manam lan moy sa bëgg-bëgg ci art bi ci actuellement ni ni nii ci jamono ji ni art bi sama bëgg-bëgg mom wax deug yalla ma ngi ci bëgg na cassette yi taxaw album yi taxaw single yi taxaw ñu toj aduna ñepp xam na kan moy xalé bi ndax mi ngi liggéey parce que bo démé ba wax bi nga wax aduna bëpp diko wax kon bayi nañ la xel ci artiste yëpp ma bayi xel ndax fimné bo duggé YouTube wala TikTok wala fo dugg kenn ku ne sama porol lay wax géwal boo gis balaa wax bu ma ñëwee sama poro lay wax kon nag loolu moo tax man xam ni nag man mii kon war naa sóobu nag ci yëfi parce que jot na nag àdduna xam kii mooy kan. kii mooy Modou Bol. kon jot na àdduna xam kan mooy moodu Bol te àdduna sax dèjà xam na kan mooy Modou bool ndax fii ba Kaolack. Ndiassane fu mu mënti doon ci àdduna ñëpp dañ koy woo téléphone loolu lu ma wóor la lu ma xam la ndax maa ngi ci am chaque jour waaw di sama doomu bàjjan bu baax a baax di la wax Modou Baol kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow bu baax a baax xam na ba beneen yoon incha allah rabbi looy tàggatoo. waaw kon na maa leen tax di wax tamit yéen góorgóorlu leen rek seen télé bi yàlla na ful. ba aduna mhm. bépp bëgg ko. Mhm. YouTube xew na. mooy TV. waaw mooy TIV TV ak euh, Étoile TV. ñaari chaîne yooyu la. étoile TV. active TV. dal leen yàlla ful ubbi leen bunt tamit. Mm-hmm. mba nag mu yokk ñëpp xam ko nag. Mm-hmm. te it émission diine bi. Mm-hmm. tamit yokk ca kanam mais émission ngéwél gi tamit war nañoo jàkkaarloo ma def boole ak sabari nag ñu daal di jàkkaarloo nag. incha allah loolu yàggatul dara bu soobee yàlla ok merci beaucoup Sénégal jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen loolu lañ leen indi loon fii si Ndiassane ci artiste bu mag a mag bii nga xam ni mooy Modou bool